habang Ramadan Oh, oh Ramadan Ya Ramadan The month of Quran Peace and mercy Feeding the poor Marhaba doom day waaw doom day ci loo nekk ah, maa ngi nii rek baay affaire weeru koor bi ak euh, ñaw bi waaw ñu ngi rek bàyyi di ko waajal nag yaa ko gi a xam na ba pare de loolu ñëw na moom lu def bare moom fu ne nii moom la yéen commencé bisu waaw dëgg dëgg loolu fuñ toll nii moom tool bi moom commencé leen dugg si kii na ay ñëw yu ñëwaale sa yoo xamante ni jël ma toog ataay bi jël teg ataay bi guddi gi waaw copain na si yow waaye xam nga da nga da nga ah, da nga naqaree jot ah bilaay xam nga loolu moo nekk coore da nga naqaree jot waaye loolu kay def na si yow. man moom man sa xam naa boo ma jëlee may teg ataaya rek man moom aw ma problème. ah copé boobu daal ah. boo ko bëggee si yow la def. neexee weer bu loolu kay bu dee yaa xool loo may jox rek. <laughs> waaw côté gars yi ñëw ambiance. donc copé loolu moom def na si yow loolu moom waxtu boo ko bëggee rek bàyyi soo ñëwee amul teel. loolu waaw parce que affaire si moom. waaw sa loxo la des rek. d'accord d'accord waaw. wa ko be waaw man mom bàyyi ma dem Serekunda ni am luma jand ni parce que ñoom bi ni am luma ko wara a boole léegi ah. bàyyi ma daw Serekunda ni jënd ko ñewat après nga xoolaaleel ma place bi da d'accord waaw dem ñëw wa d'accord may ñew kuma ku rek wa fi yow kula la jappal yow mu yaangi fi de yow defal li yaangi fi de ci sama gay so ta ta ta saa say place bi dama bayal de man daal téyéeri daal man dal téyéeri xam naa de wóor yalla nat do mom assalamu alaykum Malikum salam. naka ada? Sawa, yang va Alhamdulillah. ngi si Jam alhamdulilah. naka yi tey. jàmm rek kay. tooga jam, jërëjëf. naka mu yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm waaw. naka mu. ah weeru ada korbi deh. man si tawa? ba yaa Dok. wor. dog naa ko de. dog. ma ne ko dog naa ko ci war moo yéen jigéen lan moo tax doole leen nangoo woor weer weer. ah yow tamit. damaa ji gis nga sama yaram bi nu mu jeexee. gis ma yaram bi yëpp a jeex yow. baal tooñ fi jeex baal tooñ. mais naka ma. maa ngi nii maa ngi si jàmm. waay. yaa borom atelier bi. waaw waaw waaw waaw. ah ok dama isi woon ñëw. waaw. Ah. dama isi woon ñaari ñëw pour nga ñëwal ma ko. ñaari mm. ñëw. Ok. Bon pou sa nyan koko bol? Har, mwen wan style. Ok. Style bu sexy la bu ga de. No, man rek sexy. seksi. Rafet la bu ga. Kale yi jigen ni man la nyo wot si sexy? Diret kay. Ou bagi nyo bu sexy, rek nyo wot si ablay no. Gom nan lolo. Mwene ko gom nan lolo kay. Kana ki bu sa? Ya? Hmm. Bu ve. Mwen komanse yon. Kana yon. Kana da nga defal mwen lo pat. Style bi la bu ga yon. non non bii moom dama la koy dóoral moom. bii nii moo gën a ndaw gën a ndaw si li may job ci xale xale ndaw yi. Oh, ah loolu. d' accord d' accord mais bii moom faa nga joxe five thousand de. five thousand waaw bii moom faa nga joxe five thousand de. waaye saf na di. non soxna si yaa bëgg loolu baax nag lu baax boo ko bëggee faaw ma ñëwal la wa. bii moom five thousand waaw. léeg-léeg da ngay bàyyi avance fekkee d' accord nga fi bàyyi avance bu ko defee su ma ko dooree ba pare boo ñëw rek nga jël si ko. ma jël si ko waaw baax na. dafa baax na ah five bi kañ xanaa da nga koo wàññi pour ñaari piis yi. xaw naa saf de yow non yow ñaari benn bu dee two five two five baax na. waaw ñoom bi dafa dafa dafa kii de dafa dafa métti moo tax. ah ok waa xoolal amul problème. Hmm. naa la jox advance. jëlal ma léegi léegi mën ngaa teg ma jëlal la ma jël ba pare. waaw baax na dama xaw a yaakaar sax. tuuti aj aj loxo aj ko. aj ko aj ko ale loxo bi baax aj ko aj ko. te day dang noonu de. xanaa man moom. yow kay toogal rek yow naa la dóoral amal na taal ko boo xam. ok pareegul. looy jooy looy jooy xanaa danga am na xel dafa dem si dara. danga kontaan moo tax ngay jooy. ajal ajal ajal ajal ajal. man bëgguma mu dang nii. déedéet bu su dangee nii style bi du feeñ. waaw def ko noonu mu xaw a Zero samovar, samovar, mingi samovar. Samovar, samovar, ya kamse. Okay. Okay. xool ma si kanam dégg nga maa ngi ñëw. ok baax léegi mën ngaa indi avance ba après. waaw baax na amul benn problème dama war a dem jëli xaalis loolu la maa koolee ni waa xoolal léegi tiyal thousand dalasi bi su maa ñëw ma isiwaaleel la. ok four thousand bi. tey naa koo jël si. non yow bàyyi fi sa nombre dinaa la ko. waaw ca pen bi. waaw. 58. waaw 37. waaw 294. xoolal fii nag bul bul ñëwaat dégg nga dinaa la ko su paree rek dinaa la ko. waaw baax na amul benn. munoo man lu ma waroon a natt dama ko am lu ma fàttali waa garaaw demoon. ah déedéet jël ko jël ko jël ko waaw. ok ba baax na baax na baax na. ay waay natt. te bu wër na yàlla ku ci woor weeru koor bii li nga xam ni moo amoo amoo koor fii naxte ay jàpp fii wëndeel fii dem yi sa waay dinaa ko wax sa waay may jël xaaral sax mu xool ni ma def ok xaaral sa waay lay ñëw waaye yàlla na fi keneen ñëwaat sa waay thousand dollars si biir am koy ndog ma de

borom atelier bi. bon man maay borom atelier bi de. ma fi ah yow mi waaw ah da fi ñëwoon ko ñaari ah ñaari piis fii. waaw ah pourtant man dama génnoon nag waaye maa fi bàyyi sama copain bi Ablaye. Ablaye laa fi bàyyi woon. dama ko jox sama ñaari ko sa advance dollars ah si non loolu yëgu ana piis yi. piis yaa ngi mais si yow def nga erreur pour place man maay borom de. man nan laa xam si loolu man si koñ bi rek laa di ko yàgg. mu non kii sama gars yi dama ko fekk mu ngee dog waaye dafa ñëwoon fii seet si ma nii rek ah yow léegi def nga dama nag si suma xaalis bi piis yaa ngi nii la mun laa xamante ak moom waay ah, léegi dafa doxoon nag ba agsi fii dana toog ñëw seet ma léegi fu ñu toll nii mënu ma si dara man Ablaye xaw ma fu mu xaw ma fu ma koy wëree waa ngir yàlla dimbale ma ah lu ma si suma xaalis ah wax dëgg yàlla si tam moom mënu si dara nag su ma ko fekkee woon sax xaj na ma mun si dara doxal lijjanti ko

ma en ma jël suma ñaari pis jox ko ak thousand dollars ndike mom nekul borom atelier hmm. moomut atelier waji ta mom atelier waji kenn du def lolu duma man du man de du man ah, xam nga nit nit nit day am ñaar hey hey nit day am man hey man police officer la ya maa dégg lan lis ya ma dégg jox ko xalisam bi mu dem kenn du def li dégg ya ma dégg lii anduta loi yow ya bon Ya ma dégg halis bi jox ko xaalis bi mu dem acha dama la yobou de Ah, na gaaw na gaaw na gaaw ca. Ah, eh. eh ah waa ji yaayam jaam ndànk. ci loolu nag yaay ko la jaamale. loo xew sis la la loo xew. Ah. yow. ah kii. waaw. kii lu mu nekk di def ni andu daal luwaa bi. lu mu def. dafa jë xaalis ji eh, jàmbur la jël nii. non pile yow non. eh, eh. dama xool. doom di stupide. boy sorry wii ma. man police officer la yaa maa dégg. ok sorry dama ko yóbbu si station. non wii ma. baala ma ma wax ak yow. kii sama rakk la non wii ma. kiis kii sama rakk la xool. bés yaay Ablaye bu may yab. kii sama rakk la mais moom nii rek la nekk ci dëkk bi man maa ko jëlee ci ob indi ko fii waaye toujours ci lii la may teg lan la lan la def siis lan lan sa la jël. dama ko fekk si atelier mu nga toog. ma foog ne moom mooy borom atelier bi. waaw ma ko suma bis ak suma. waaw hey may stand up hey Ablaye. Ablaye xool koo yóbbu si station bi. sori bro. andu ta luwa bi man maa laay ñaan xam nga kii lu mu def ni man du ma ko def. ma ne waaye kii àndut ak xelam non déglu ma kii àndut ak xelam man maa lay ñaan ña siis ñaata la jël ci yow. 1000 dollars. ana xaalis bi kan ko delloo na ma ko. ñaata moo fa nekk. xaaral ma xool. 500 dafa nekk. yow an suma xaalis. ana génneel suma xaalis. génneel xaalis génneel xaalis. so ta so yéen ta defal na ko defal na ko. ah defal na ko du dem fenn defuloo sa nga daw. Kan, kan ko kan ko kan ko fa nekk. mut na euh, bro maa lay ñaan xam nga déglu ma kii su defaateel dama ko yow si ma yéen maa lay ñaan tëj xool yaa maa dégg yéen yéen yéen yéen yéen officer officer officer man maa lay ñaan yéen yéen ñun ngeen nekkal ci réew mi ndax su ngeen fi nekkutoon du baax parce que gis nga sama kii dafa wérul waaye xam nga ne man du ma ko def te yéen yen a ñuy jàppale ci réew mi bu baax a baax a baax man maa ngi lay sant di la gërëm di la baal ndax koor gi tàng na te kii xam naa ne tàngaloo na leen jéggal ma rek te yàlla tax weeru koor waaw baala ma rek office jërëjëf waay jërëjëf ma jox la jërëjëf waay office jërëjëf si ma wé ma maa ngi jégalu jërëjëf Ablaye nekkal nit baa nga nekk dof Ablaye yow xaalis si jàmbur bi ngay jël ni yow ñaw Ablaye yow for nga nekk téer man mii danga maa gis man may ñaw suñ famille kan moo ciy ñaw yow kan kan lan moo def ba ngay jël xaalis si jàmbur isa xam nga ki taxoon fii lan la wax na te gis nga ñoom police yi ñun ñoo yor suñu kaaraange tey jii nii gis nga su ma fi nekkutoon euh, du du baax ci yow. Ablaye nekkal nit baa nga nekk dof. man boo ma respecté wul sax nga respecté suñ police yi. nga xool ñoom seen uniforme bi xam ne suñ suñ kaaraange lañ nekk. ku baax la ndax sinon kon yow. waaye yow baaxoo moom su baaxee waaye yow baaxoo yow nit. koor gi bëggatuma ngay jël xaa koor gi moo la lan yow est-ce nga tey ah woor